dañuy woo xale yu jigéen yi bu dee jigéen kilifa jigéen ndaje day toog xale yu jigéen ñi toog ñuy xool di marqué di bind ngir jikko yi bu ëllëgee bu fa nekkul bu gan ñëw ñu man leen a teral góor nu daan def góor da yar doom bu góor nampatal ko jigéen yar doom bu jigéen ci jikkoom ju rafet ku góor ki nag doon personnalité ku waa fe leen yor kër gi ba kenn du jàdd alaaji jazakumullah est-ce que amul lu ñu jéggaani lu yeex mu waral lii ndax bokk na ci ci lu ñu jéggaani boroom kër di bokk lal ak doomam ndax ñu ci bëri dañuy roy ci nasaraan yi ci wàllu naka lañuy ñuy seen njaboot bëriwul ñoo xamante ne ci boroom kër éduquer nañu ci diine éduquer ci cosaan ndax am na fenn foo xam ne diine ak cosaan dañ fa fekkante uh-huh. éduquer boobu mooy tax sa doom loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg nga am réserve ci moom nga du toog ba nga xamante ne ne nekk na xale commencé nga koy tàmm di ko nàmmal sa bopp muy dox sa digganteeg euh, sa sa soxna ngeen di ko gàll ci diggante bi ba mu màgg waxtu wu ñëwee fekk la yow mi bàyyam nga tëdd mu xalaat ne war na yëkkati euh, mbàjj ma war a dugg sa biir muy dem ba nga xamante ne ay cëram di mët muy dugg ca biir ba ca njagamaar muy dugg ca biir te loolu dafa xew bokk na ci li ñu jéggaane borom kër boo xamante ne day ànd ak doomam dem boîte de nuit bokk na ci lu ñuy li ñuy jéggaani borom kër boo xamante ne day ànd ak doomam dem plage nga sol may de mu sol may de bokk na ci lu ñu jéggaani nga ànd ak sa doom dem weekend yooyu yëpp dem nañu ba nga xamante ne ginnaaw wërsëg wi seexluwul te fu ko neex tàbbi mu tàbbi ci xel yu matul yoo xamante ne pour ñoom la ñuy mottalikoo mooy roy ca nasaraane te loolu mooy sabab yi kon loolu suñu fi toogee di tëj foog nga yee ñu ci ci wàllu diine ju ak wegeel daa bokkul léegi la weekend xew mag njëkk ña weekend lañ daan def. dëgg la weekend dëgg la dëgguy wax de. dëgg la weekend ànd ak sa doom la bàyyi ndeyam. Mm. moo daan weekend fu ngeen daan mës a jëm. dëgg la fu ba mm. kenn ku ne yor sort sorte nag boo ko diggee soor la. Mm. waaye sorti nga. xalaatoo too yaa ngi placé loo neex jëf. ndeysaan mag njëkk ñi dañ daan def rek respe ak week wegeel. lañ daan def dëgg la lu daan mës a doon wegeel. dëgg la bu seen ndey mës a tukki jigéen ñi. dëgg la. bàyyi dama ne ni kilifa. Hmm. mooy mujj tëdd ci kër. dëgg la. mooy njëkk a yeewu ci kër. dëgg la. muy mujj lekk ci kër. Hmm. ndax escorté. Hmm. damay dégg malade boo gis mu jóge ci biir kër. la yokk feewar ba docteur ba ci biir kër ga daa matul. dëgg la bu demee hôpital buñ ko yërëmul mën na faa faatoo. dëgg la dëgg la dëgg la oustaz. Eh, la. gis nga yi ñu jëggaani eh, ni munu gaañe ëpp na. te suñu maam yu baax yi. loolu dañ nu ko moytuloo woon bu metti sax euh, Serigne Touba radiyallahu anhu dafa taalif benn téere tudde ko yóbbalu ndaw ñi muy ta tazawudu sigaar yi euh, mu ngi ko ubbee euh, yaa ayuha sibiyaani la tastaxilu an ilhuda wa bil ulumi staxilu fastaxilu bil xifzi wa tilawa wajtanibu majalisa saqaawa xam ngeen tudd ngeen boîte de nuit foofu Sëñ Tuubaa daf tere dem boîte de nuit waxuma ànd ak sa doom de dem fa laa wax ne bu leen ko def wajtani bu na ngeen moytandiku majaalisa shaqaawa barab yi nga xam ne barab yi texee di la ñoom barab yooyu barab yi texee di lañ ko tuddee ñuy dund nag ci jamono boo xam ne man nga ni la nga doon jëggaani sax di war a ko jëli bitim réew wala feneen mu ngi ci sa biir kër léegi mondialisation bi léegi amatoo ci pexe te mag ñi ni ñu doon yare dañu lay jàngal ba jàngal la yee di ñëw mu yii ñuy dund tey xam nga Taysiir Tijaan bu xamul turu ci Sénégal bariwul. Mm-hmm. téere Taysiir boo fa demee Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ma ngay wax ne.